wa man ci projet bii nii man amna ci jangat sama jangat moy, jangatu sénégalais moy décret moko defone wi di jamono Abdou Diouf la won 1996 bobu problème politique la won ñu def Dakar Lyon c'est-à-dire Abdou Diouf ko defone sax Dakar Lyon la ko tudde won bobu xëccu bi bari na Dakar mu dag manam ay gox-gox coordination bu nek mu def la pour que nga jité fenn euh, Ablaye wad di ñëw fi lolou bu mag Sall ñëwee te décret defoon ko bu fekkente ne décret moom mooy tax que maanaam li mu war a liggéey mu liggéey yaakaar naa ne askan wi waruñu ko ci ŋàññi ndax ñun duñu combattre pour personne dañuy combattre pour principe euh, tey jii may wax ak yow kenn xamul ëllëg kan mooy jiite maire yi kenn xamul kon buñ jàpp ni nit kii moo tax ñuy xeex wala kale bu dee Khalifa Sall. même bu fekkente ni moom la man lu ma xeex ndax li tax lu ma xeex mooy tey situation bi nga xam moom la réew miy dund Khalifa Sall mooy njiit li ndax bu fekkonte ne à 2017 coalition bi nga xam moom la ñoom créé woon ñun ñi ñëpp muy coalition maanaam wattu bi manko wattu bi Khalifa Sall tëstoon coalition yi pour dem taxawal li si bopp moom Idriss Seck kon tey ñoo ay majorité ensemble national kon tey bale léegi ñibbisi na am na amnistie nañ ko kon tey Khalifa Sall mii du dugg ci kaso bi mais bi mu ko tasee la dem wutim liste boppam ñu war askan wi bi ñu ko jàppee ñu indi ko assemblée nationale pour que maanaam ñu war ko dindi ma malaanum kiraayam menn man ak sama frère ñoo fa nekkoon di ko défendre ndax li tax man menn man kese maa bokkoon ci commission loi boobu noonu nekk vice président di ko jàppale ba Khalifa Sall génn yëkkatiwul téléphone am sax woo ñu ñun ñi nga xamante ñoo ko doon jàppale demul seeti suñu leader yi muy président Abdoulaye Wade ak président Pape Diop kooku kon jàpp naa ni du nit ku baax du nit ku wóor ku war a jàppale. moo njëkk trahir Sénégal ndax coalition ba moo ko tas te yaakaar Sénégal yooyu amoon bu am bu fekkoonte ni maintenir na loolu bu gañee Dakar gañee Thiès gañee Touba gañee Saint-Louis gañee Ziguinchor ak liste nationale dañuy am majorité mais boobu xam lu mu si jublu woon ba yàq coalition boobu noonu ndax Abdoulaye du ma jiite. voilà kon moo tax moom loolu moom li ma si wax rek mooy euh, Macky Sall décret ko jox moom moom la woon bu ko décret may tas tamit intérêt réew mi na ko def voilà. waaw loolu tamit li ma siy wax mooy euh, ñaar lan laa dégg kenn ki Sada la Sada Ndiaye dafa bëgg fàtte ñu fàtte jëf ju ñaaw ji mu defoon ci Macky Sall ndax moo indiwoon lu waa Sada Ndiaye Macky Sall pour ñu dind ko maanaam. Euh, dàq ko assemblée parce que maanaam dindi maanaam nangu maanaam cinq ans bi def ko un ci la Macky Sall demee. tey bu mag sàll génnee PDS Sadou Ndiaye bokk na si xëy na peut-être que dem na ba bëgg koo neexalaat tax muy def yooyu mais yooyu saful Macky Sénégal tamit safu leen ndax fam ko def ak lam ko def ëllëg nit mën naa ñëw dind ko bu dee problème mu Saint-Louis Mansour fay la li ma ciy ñaaw la rek mooy mu jóge ci man Mansour fay mais njiitu réew. kenn ku nekk am nga sañ-sañu fa nga dëkk nga sargal ko tudde ko dara ndax yaakaar naa tudde Macky Sall aussi moo gën tudde Faidherbe mais ci doxalin bi moo rafetul ndax comme dafa nekk ci mandam te jeexalagul dafa waroon bàyyi ba mu àggal mandam ñu njukkale ko sargale ko ko comme moom ni mu defal Abdou Diouf comme ni Abdoulaye Wade defal euh, Blaise Diagne comme ni Abdou Diouf defal Senghor waaye doo nekk maanaam ci mandat ñuy jël maanaam ay rue ak ay ju am solo di la ko tuddee kooku yaakaar naa dafay yàq sax sa liggéey ndax tey Mansour situation bi mu nekk dafa war a am jàngat ci situation Karim Wade ndax ñoom ñaar benn lañu te Mansour mu ëpp doole Karim Wade ci réew mi ndax li Karim doon def lu ko raw la Mansour def ndax fi mu toll nii 69 milliards yi ñu ko joxoon amu si lu leer askan wi xamuñu ci dara. ba fi may wax ak yow am na ay dëkk yoo xam jotuñu seen i kit complément te xaalis bi kenn xamul fu dugg li nga xam ne moo nekk maanaam signature ndox bi nga xamante ni mooy seen eau ndox mi dafa gën a seer dafa doyut te moo signé contrat yooyu noonu lii ñu ko joxaat nga xam ne ëpp na deux mille milliards muy ministère de yor mbirum tëli yeeg yoon yeeg transport bi beeg kooku yaakaar naa ni. moom la Karim di yoroon moom la jeexale kon dafa mel ni rek mooy Karim biis noonu laa ko tëddee waaw moo gën a yées sax waa mooy mooy Karim biis rek parce que ndax euh, tey bu ñu maree makki sàll bokk na si yenn doxalin yi mais bu Macky Sall taxawee ne xëy na dafa bëgg troisième mandat wala ñoom ñu koy poussé pour mu am troisième mandat pour ñoom ñu aar seen bopp la ndax bu makki jógee ci réew mi ñoom la ñuy njëkkate ci kaso bi loolu moom dama la koy Mansour Faye gars yi ñu ngi si ay tànkam bu fi Macky jógee dañ koy tëj Adama fay rakku Marème fay Sall bi nga xam ne moo yore affaire suuf yi yorub saagam lu nekk mu def ko bu fi Macky jógee gars yi duñ ko tëj keneen ki nga xam mooy Aliou Sall nga xamante ne rakku Macky Sall nga xam ne moom la ñuy laaj quatre cent ba léegi mu ñu gun see jot bu fi Macky Sall jógee dañ koy tëj ak ñeneen ak ñeneen yoo xamante ni ñu ngi ci liste bi kon ñooñu duñ bëgg Macky jóge fii nii Macky ba la fay jóge kon dafay jéem xool ginnaawam kan lay mën a garanti koo xamante ne bu fi jógee dana ko mën a aaral njabootam te loolu lépp lu koy war a mooy jël sa fam ko ci session te loolu baaxul quoi dafa yàq li nga xamante ni mooy démocratie waaw loolu mooy arrogance saa à dire yow da nga ko tudd cest à arrogance mooy loolu mooy aw askan kenn mënu leen jaay doole Mansour Faye du doolee boppam lay xeexe mais doolee doolee Macky Sall lay moom la yor quoi